mais pourquoi may wax ci li xew ci réew mi te man loolu intéressé ma li may intéressé maa ngi koy wane mooy dibi yi may lekk ak yàpp yi may lekk ak police seen événement ma intéressé ku ne nekkal ci li la def leen ko man maa fecc maa ngi happy sama poos ak xaalis maa ngi dund happiness all the time you know ok seen digg la fa ndey bu ngeen yeewoo man maa ngi dund sama happiness maa ngi happy dara méttiwu ma nag waaw dara saf ma nag waaw happiness rek laay def man yàlla na leen yàlla defal jàmm